Euh, dañu am mbégte tey dalal recteur bu université AIF ak mbooleem suñu recteur yi fi nekk euh, pour maanaam euh, lancer programme bu ñu tuddee statut national étudiant entrepreneur li ñu gis ne mooy Sénégal ak maanaam dëkk yu bëri suñu étudiant yi ndongo yi bu ñu jàngee ba pare dañuy faral di am problème jafe-jafe pour am liggéey loolu moo tax nag AIF dañu créé benn programme bi nga xam ne Université de Dakar en tout cas mu ngi ciy liggéey euh, pour que étudiant bi bu muy jàng mu xool aussi nan lay mën a ba euh, nekk entrepreneur. donc loolu gëm nañu ko bu ñu ko yaatalee war na mën a war nañu mën a am ay étudiant yoo xam ne euh, problème bi ñu am actuellement mooy problème mu chômage bi dina ko bu baax a baax. xam nga actuellement fu koy lancé nii benn circulaire moo ko mais bëgg nañu comme que affaire emploi maanaam laal na ministère yu bëri euh, ministère de l' emploi ministère bu yor wàllu formation professionnelle ñun ñëpp daal war nañu mën a lëkkaloo def benn arrêté interministériel gën a dooleel mbir yi pour que étudiants yi ñu gën ko ñeme euh, gën a mën a dugg ci système boobu.